surtout yéen sëriñ si temps yi match bu génn ngeen wax ci équipe bi ah ay équipe national ngi nii war a fubal fi mu toll nii xoolal tey rek. avant ñuy dóor non tey rek avant ñuy dóor. idi problème lañ ci am. man de yëguma ci dara dernière minute Sénégal am penalty ñu dugal. sëriñ si ah, commencé nañ am na ku ma dégg mu ne. Sénégal day door 2-0 te gisul sax 2 séenu sax 2. Ah, Gambie tamit fi mu toll nii dem na Coupe d'Afrique xanaa boo jàllalu équipe nationale bu Sénégal idi di nga jàllal Gambie. <laughs> Ah. xam nga ndeysaan eh, Idrissa dafa weex dunk Idrissa nit la koo xam ni day bëgg defar hmm. ba leneen fekk ko ci lu ñuy ñaanal réew mi mooy yàlla na leen yàlla defal jàmm mus nañ laa yóbbu indiwoo dara kat eh, daaw daaw yaakaar naa lañ la yóbbu indiwoo dara dem bëri na de ah. ren ñu xam ne Idi. parcours bi ma def. waaw Idi kon ren. non non non non dégg dégg ma rek dégg ma dégg ma rek parcours bi ma def. Hmm. nañ ko na ko nit ñi def rek. je suis mal placé pour parler de l'équipe nationale du Sénégal. ah ñaanal leen ndam dong la war. dégg nga citoyen nga doomu réew. sa ngeen bàyyi bu ñu leen yóbbuwul. ngeen yàqal équipe bi ba mu ñàkk. sëñ Jili. man man ma wax la ñaar nga koy dégg. Hmm. man aw ma jot sax pour xeex doomu Adama Ndiaye. bay xeex équipe nationale Sénégal ndax ki fa nekk muy la ministre des sports sama papa la. lu tax demoo. jiili yàlla lu mu tuddul munu ci dara. déedéet Idi am na loo def. lu tax demoo waaw jiili. yàlla toog bi ñu toog fii sax yàllaa ko tudd. waaw defal naa xam nga jiili. yàlla bu ñëwee rek. yàlla moom kot la. yàlla bu ñëwee rek léppay tëdd. waaw defal naa jiili. wa xam nga xam nga kaay ma dimbali la. Mhm. kaay ma dimbali la. Mhm. te ka ngay dimbali bëggul nga dimbali ko. Mhm. est-ce que dimbali ko dina sotti. déedéet xam nga du sotti. Mhm. Euh, je te exemple nga déglu ko. Mhm. xam nga li ma mën. wax ne sàngam ak sàngam nañ ko def. man mooy que je que je pars. ou je ne pars pas ou Sénégal li ma mën mooy a ah, sangam ak sàngam de gis naa ko ñi ma ko war a wax wax naa leen ko. ñi ma ca war a jëflanteel jëflante naa ñoom. waaye duma ma forcer nit par la force dangay ngay def lii. Mhm. waaw la ma cay gis tamit gis naa ko ña ma ca war a waxal waxtaan taan naa seeg ñoom waaw. mosal ma ci dara ma am en exclusivité bi ci wasaare lamb équipe nationale bu Sénégal. jërëjëf dinañ dem quart de finale demi finale wala coupe bi sax yaa xayta ren dina ñëw. ah sa Jil nag wax dëgg yàlla ak yonent bi ren moom je mal placé pour parler xam nga man la je suis mal placé pour parler. Hmm. li ma la mën ax wax ba wax la ko mooy ci kàttanu yàlla bu soobee yàlla ak yonent bi daal nañ leen ñaanal jàmm rek. ñaanal ñaan jàmm. réew mi nañ leen ñaanal jàmm rek. Ah, réew mi moom dañuy am jàmm ndax ñëpp ñaanal nañ leen bàyyi ñu dem lan nga gis. Idi bul ci def code yow tamit. non après di fi ñëwaat ñu toog waxtaan suñu suñu fayee suñu fayee. suñu ñeme nga am nga fit nga wax loolu dëgg la suñu fayee suñu fayee caméra hmm. ma wax la li ma la war a te di nga fi ñëwaat toog ne Idrissa Ndiaye moo ma wax lii. kon Idri li ngay wax danga koo ragal. du question dama bu fekkee ñeme ma ko bokk ak askan. non non du question du question ñeme ma ko bokk askan gi. su ma waxee day mel ni dafa am lu ma denc sama biir xol déedéet c'est pas le moment de parler. ñi ngay waxal ay borom xel lañ sénégalais yi lay seetaan ay. borom xel lañ c'est pas yaa ngi leen di déggul ma xanaa Sénégal li ma mus a ànd ak moom. 5 million bu mat musuñu ma kaa jox. maa ko ko tey nga dégg ko. ak li nga tukki yëpp ànd ñoom. billahi wallahi wataalaahi. kaamil laa yor nii. barki mm. sëriñ Fallou Mbacké. musuma lekkal équipe nationale Sénégal cinq millions musuma lekkal équipe nationale Sénégal trois millions. un citoyen boo xam ne day volontaire laaj leen ay sarax ñu génne ko ñu ànd moom mu siy jàpp te yàlla tax pour mu leer si bëtu askan bi. kon ñi doon wax Idi dafa lekk suñu xaalis. déggoo dañ ko yóbbu te xamul dara. kon da demoon rek ngir jàppale ma wax la ñaar nga koy dégg. Mm-hmm. tay fekkoon ku nekk suñ waxee si nit ki nga génn défendre ko. Mm-hmm. am na ñoo xam ils sont mal placés pour génn dama défendre parce que ay kilifa lañ. Mm-hmm. Sénégal li ma ànd ak ñoom ñëpp balaa maa dem stade dama leen résultat match. li nga ànd ak ñoom ñëpp. déggoolu ma ne avant yu ma ànd ak ñoom muy ba ñuy gagné Pologne final euh, bi ñuy gagné euh, euh, comment dirais premier match coupe du monde. trois mois avant résultat bi dama ko joxe jox ko ñi ma ko war a jox ñu ngi may dégg man dama bëgg ne Idrissa Ndiaye lu mu ci wax mu doon ay fen wala mu doon ay naxe ñoom ña ma doon sékkal nañ génn tontu. kan ak kan nga ci doon sékkal. non non du question non non du question tey c'est pas le moment de tudd de citer lii wala de citer là mais nit ki su lay jàppale te yàlla tax. Hmm. rend lui la monnaie nga xam ni. tey li may volontaire gi may def di jàppale réew mi. Mhm. su ko ñëpp doon def ko bi ñëw na fi bu yàgg de. loolu dëgg la. j'aime ce pays nag j'aime set nation. Mhm. mais nag du ma bëgg nation bi ba ñàkk fayda wala bay waaye di loo sama bopp di ma ci fekk déedéet. Mhm. te bis boo fayee caméra yi ma wax loolu loo xam du lu dañ. te loolu bis bu ñu sa yeggee yow ci kàttanu yàlla nga ñëwaat dékkaat ma micro ma tontu la ne la lan moo taxoon waxuma ci. te li ma lay wax nii je pèse bien mes mots. je pèse suñ fayee micro yi ma wax lax mu yam si man ak yow ngir jëmm sëriñ tuuba même loolu su amul génnal nga siiwal ko ne Idrissa moo ma waxoon lii te ma lay wax mooy am xanaa déggoo li ma la. daa mel ni décidé nga de. billahi wallahi wa taala Serigne Abdou Karim Mbacke du ma ko waxee ay caaxaan Serigne Abdou Karim Mbacke du toog di ko sosal si ab micro wala ab télé wala ab leneen. Mhm. daf maa dee wan ma ma gis. ma borom makaarimal axlaa daf maa wan ma gis te du ma si demantu di waxti lii wala laa nañ may gis ak nag samay ñetti kilote wala samay ñetti leen di ma xeeb. Hmm. ñu dem ñu xool ba ci kanam. Gambie nag équipe nationale bu Gambie tamit dem. non non man affaire équipe nationale ay yooyu moom. non mais Idi munoo nekk ci. ñaari réew waaw Gambie li ma leen di ñaanal mooy yàlla defal leen jàmm si barki Seydina Muhammad. non Idi tamit xam nga xam nga xam nga xam nga actuellement nii. gis nga waxu Coupe d'Afrique bi nii waaw defal naa non non waxu Coupe d'Afrique bi nii. waxu taatal non bi nii. c'est pas le hmm. la su ma paree ak ba wax la li ma leex su la neexee nga enregistré ko téye nga la nag bis bu wax amee buñ taxaw ne Idrissa a woon ak ñoom ngal la rek def naa sama devoir li ma waroon def lépp. mais tàqalikoo ngeen ci jàmm ci tàqalikoo bu rafet. man aw ma kenn problème man taalibi Serigne Fall sama xol bi dafa set wicc idée bëri ay noon idée bëri ñu ko bëggul. idi nag da ngay déranger de xaw ma ñan ngay. déranger yàlla moo ko def déranger idi. Tunisie Sénégal dañoo taxaw si biir avion bi laa la ne leen carrément ne leen match bi 2-0 la leen penalty day am si match bi premier bii bi bal arrêté la. contre Zimbabwe ma taxaw ne leen balaa 30 minutes damay dugal ñaari bii li may wax day am ay seede am ñu ko fekkee. benn bii bi yéex naa dugg. comprendre pour naa benn bii bi tey suba dama ko wax sama xarit yi ñoom ñëpp. billaahi wallaahi wa taalaahi soo buggee léegi ma woo ñoom ñëpp ñu ñëw. nga leen Sénégal. ñoom ñu taxaw man leen match bi mënut a am ñaari bii benn bii lay am te deuxième mi-temps la bii bi di dugg huit heures laa leen ko wax. xanaa looloo gën a dee daa am lu solu guddi gi di la wax wala da toog guddi gi di ci liggéey. wala la wax di la la déggoo de Thiès ñëpp ma ko xamee su ma duggee stade dama naan camp yi moo am bii camp yi amul bii loolu yàlla jagleel na ma ko. gis nga àdduna nit ki tur yàllaa koy def si nit ki sama yëngu-yëngu yàllaa koy def si man tey ñoom kenn xamul woon dinga doon ministre wala di nga doon député wala di doon président waaye Idrissa nag day def lu baax bañ ko cay fay lu bon waaye rek Idrissa moo toog maa ngi sant yàlla maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi sant yàlla maa ngi julli si yonent bi su ma amee sama 2000 francs maa ngi koy santee yàlla suñ borom ñeew ko am million de waaye nag bëgg réew mi jëm ca kanam bëgg réew mi dem ci kanam des fois moo lay tax nit ñu foog ni da ñàkk fayda wala da waaye di déedéet ñàkkuma fayda bëgg réew mi am jàmm ndax Sénégal su fi demee Coupe d'Afrique indiw fii dara réew mi doom am jàmm. déedéet. kon Idrissa Ndiaye mu jug gis la muy gis wax la muy wax ngalawaay nañ ko déglu waaye duñ ma déglu ñeneen lañuy ñuy baax na.